<laughs> vraiment euh, déglu naa la avec intérêt aussi euh, nga wax ci 100 jours yi wax euh, reniement bi am par rapport ak Pastef wax ci appel à candidature yi man appel à candidature yi bi ma si wax yàgg na parce que parce que ca nañ ko doxalee musuma si ànd en réalité musuma si ànd musuma si d'accord parce que dama waroon jàppoon ni aujourd'hui ci côté boobu rupture war na mën a am parce que am na loo xamante nit ku ne rek la mu gis ca sa projet ba fal la dama jàpp ni y a des yoo xamante ni xëy na tey porté nañ Pastef au pouvoir tout simplement parce que convaincre nañ leen ca point boobu. y a beaucoup d'étrangers yoo xamante ni tey gis ñu lu dul delsi si réew mi liggéeyal réew mi te xëy na peut-être loolu la foofa lañ yaakaar woon jaareel kon loolu bu amul jàpp naa ni aujourd'hui en ce sens mën nañ jàpp ni rupture amul côté amul ci côté boobu maintenant nag xam nga yéen souvent. damay wax ni ci démocratie lañ nekk du ma bañal kenn mu wax parce que man lu yoon jox nit du ma ko ko du ma ko ko xañ mais xam nga souvent yéen ñi nga xam da ngeen a nekk APR jàpp naa ni seen avenir politique boo moytul moom fii fii la yem jeex na soit da ngeen di dem bootu ji si ku am légitimité politique wa ilaa moom ngeen jaare fi France daani xëddem parce que sénégalais yi tey la nga wax ak la nga décrier ci ni gisul leen ko ci régime bi te ñoo ko diggoon askan bi xam loolu benn si yéen la njëkkee yéen wax da leen di jafe wax da leen jafe dama lay ñaan rek nga bàyyi moom terminé nag wax dana leen jafe waaw non APR nga bokk ah bokkoo APR waaw li nga bokk APR moo tax mu tudd APR de dama ni wax ci penc mi dina leen jafe trop parce que Sénégal yu bëree bëri jàpp nañu ni la ñuy dund tey ci ak coono yéen a leen ko teg jàpp nañu ni waxuma nag c'est pas c'est pas une confirmation mais jàpp nañu ni la ñuy dund ci coono yéen a leen ko teg xam nga reniement ci yéen la tàmbale parce que tey yéen bi ngeen di ñëw au pouvoir am na lu ngeen promettre woon sénégalais yi te en réalité yi sénégalais yi gisuñu ko mu nekk une réalité fa ngeen njëkkee woon mooy da ngeen ne woon ci seen première mandat bu ngeen ñëwee da nga koy réduire def ko cinq ans loolu le président waxoon la à cinq ba mu demee dafa ni saisir na conseil constitutionnel loolu ngeen njëkkoon wax. li ngay ah, xaaral ma ñëw. ne amuloo argument. ah mais baa ma terminé. Ah, wallaay lazim c' est des arguments. non non c' est pas des arguments non non dama lay bëgg a wax ni. mais régime boobu jógee na fi te dégg nga man ma ne. c' est pas parce que Macky Sall def na ko. déedéet taxawal Abdoulaye Wade def na ko que kii fi nekk dafa war a nekk non damay wax seen ñàkk légitimité. ñooñu génne nañ leen waaw même ma ñëw. ñooñu def nañ ko sénégalais yi nee nañ leen bëggatuñ dem nañ. wax luy la ñuy wax grave on peut on peut ne pas convoquer l'histoire bàyyi wax on peut ne pas voilà rappeler rek seen ñàkk légitimité léegi ci espace politique bi tout à fait dama leen koy retracer pour ngeen xam ni yéen itam mhm. lii moo tax sénégalais yu bëri la ngeen di wax sax donte léeg-léeg mën na nekk dëgg mhm. mais sénégalais yi ñoo leen mënatul concevoir ñoo leen mënatul déglu mhm. da ngeen a digoon loolu askan wi. askan wi gis ci waaw après nga wax ko ah, man su fekkee li nga wax moom c'est objectif mën naa si ànd ak yow à 100% waaw xam nga sànq bi ma lay wax ni bul ma dog xam naa ne danga may dog moo tax ma wax la loolu. deuxièmement deuxièmement bonne gouvernance mauvaise gouvernance du moins ci yéen la gën a flagrant wee parce que ay détournement yu ñu dégg ba tout dernièrement yaa déggal sa bopp Alioune Sall le frère de mak Sall bokk moom ndey bàyyi la mu jël wax ko Mansour Faye dégg nga ko. mais lam ko wax déglu nga ko. jarul dellu. Eh, non dañu man man Mansour Faye si vous me le parce que bëgguma ñuy dugg si beneen sujet. la ah, wax dëgg nañ non façon bii ngeen war a bàyyi. non mais wax na. la mu wax dëgg nga ko man chroniqueur laa toog alors que dafa am loo xamante ni moom ngay défendre intérieurement di nax askan bi. di wax waxal rek non waxal. lu may défendre non waxal. <laughs> bàyyi leen seen yi ngeen def. dégg dinaa la non non. saa dama leen allez-y non rek. waaw si régime seen régime yéen. allez-y lii ngay dénoncé tey yëpp. mi ngi woon ci seen régime. mais jàll na. waaw mais bu jàllee c'est important de le rappeler aussi. <laughs> parce que njëkkewul tey. est-ce que yaa ngi dégg. donc am na loo xamante ne dañ koo gis reniement boobu ci yéen la tàmbale. en réalité donc kon jàpp naa ne aujourd'hui certes li nga wax du ñu rejeté lépp. ci doxali ni ñii nga xamante ni tey ñoom ñooy les nouvelles autorités il y a des nga xamante ni war nañ ko xoolaat itam ñu war a jooyante la wax naa ko léegi si appel à candidature yi nekkul une réalité ak lan encore crise bi am ci au niveau de la communication de PM kooku on en a disconvié plus wax nañ ko fii ay yoonu yoon loolu dañ ko dénoncé non il une crise au niveau de sa communication loolu on n'en disconvient pas communication catastrophique quoi non jaraaf jëruñuy perte temps xam nga buñ nee crise crise jeexal na mais waxul dara moom ma dimbali nga bàyyi ko mu yegg crise jeexal na non jaraaf loolu naxu la de yow boo ko dégloo rek peut-être dina ñëw allez-y Serigne dinaa ñëw mais boo ma dégloo quoi mm. xam nga yi non yi ngay dénoncé yëpp man man dénoncé naa non garaawul waaw bàyyi bàyyi bàyyi ko mu eggale voilà mais dama lay wax rek loo xamante ni mat na ñu bàyyi ñu bàyyi ko xel xam nga def ngeen seen seen mouvance boobu seen coalition Benno Bokk Yaakaar bi wax ngeen ci demu assemblée nationale bu Ousmane Sonko bi wax ngeen ca la leen motiver ak la nangam ak nangam mais ba tey fi ñu toll bariwul sénégalais yoo xamante ni yéen la ngeen wax jël nañ ko en compte bàyyi nañ leen xel parce que mooy la ma rek dafa am déjà bët bu nga xamante ni moom la sénégalais yi di leen di xoolee. loolu nag non naxuma suñu bopp c'est une réalité. Ah, c'est une réalité c'est une réalité loolu lu am la ci espace politique bi. kon jàpp naa ni 100 jours yi wàññi ba la sëy na bu wax. jaraaf nañuy apprécier quand même la wàññi bi ak lu waaye mën a wax itam lu am la c'est une réalité c'est une réalité da nga ma koy jox ci ciment non xaaral concret da ne amagul ay acte ne amagul ay acte yu concret yu ñu posé du loolu nga wax par rapport ak euh, contrat yi nga xamante ni fekk nañ ko fi ne daañ ko négocier waat mais xanaa xamoo nii am na contrat déjà boo xamante ni rompre nañ ko arrêté nañ ko mooy contrat bi nga moo moo opposé woon le gouvernement sénégalais et l' entreprise saoudienne ak wa mm-hmm. mais rompre nañ ko waaw léegi lan la ci loolu waaw loolu bu concret la dama lay wax ni rek ak no y a des actes très concrets mais non attends attends lu concret lu concret lu positif mais waxuñu lu positif xam nga waxoo lu positif lu concret nga ma wax ankay non non non non non non xam nga quand on parle de concret. mais lu concret non non loo am. lu concret mooy loo xam jëmmal nañ ko am na. mais no man li may wax concret mooy. loo xam ne que ce soit mu positif ou négatif mais lu concret la man luy am njëxital ci askan. parce que dañ leen jox jox pour ñu liggéeyal askan bi. mais waxoo loolu man dama lay wax rek actes yu concret yi nga xamante ni. <laughs> déjà am na te loolu nag bu mu la gêner aussi nga koy saluer en tant que wax naa la ko sa ah, grandeur rek lay yokk parce que noonu laa la xamee aussi même sur régime bu Macky Sall da doon dénoncer yow xam ànduloo si il faut continuer sur cette lancée quand mais man xam nga ne kat wax dëgg fa yàlla nag man jaraaf ndaw mais il ne faut pas euh, gëjël lépp mais su ma mais li ma fi wax yëpp boo ko bëggee boo ma bëggee wax ne dénoncer ak apprécier la ma war a apprécier apprécier naa ko ankay ankay non nee naa waaw xam nga diplomatie de de voisinage bii nii waaw la mu ba mu xëyee la mu njëkk a def mais ñëpp ko rafetlu waaw loolu parce que loolu noonu xam nga loolu ni ñaa ngi ko jël rek euh, sur le plan diplomatique hmm. mais sur le plan sécuritaire ça dafa am lu ñu doon dund lu ñuy dundu ba léegi mu interpeller ñu ñun ñëpp à ce que ñu def attention bu baax parce que dañoo am pétrole am gaz gars yi song ñu jege ñu lool ñëw nañ ba jege ñu donc voyage yooyu mu def noonu maa ngi koy saluer plus sur le plan même sécuritaire donc dama koy dama apprécier te apprécier naa loolu. loolu acte bu concret la. apprécier naa ko. waaw moom laa njëkk a apprécier ma ne waat encore. ma ne waat encore c'est que da ngeen rafle lu ñu leen waxal loolooy problème bi. rafle lu ñu leen waxal amu leen lu ñu mën a wax fii lu ma teg ñaar yooyu rek laa am beneen bi mooy le fait que mu dem seeti sëriñ si. loolu aussi apprécié naa ko nag Serigne. waaw mais man fàttali naa la itam. Serigne war naa la ah, mais maa ngi lay xam nga le problème lan la pour affaire contrat yooyu la leen dal.